lépp lu mën a def jéggal na lu ko loolu moom falaa ci ne ba nëgëni te di ci sant yàlla muy loo xam ne du lu ma wax ci sama làmmiñ rek waaye sama xol du ko gëm amul kenn lu may jàpp nit ab jullit fas ma ko yéene incha allah maa ngi ñaan yàlla suñu borom di ma gën a dimbale waxtu wu ne itam nii muy mel ci sama xol nga xam ne dara lu ci diis ci man amut yàlla ma yàlla dimbale ak Sëriñ Tuubaa ba may sax foofu bu faw ndax euh, Sëriñ tubaa dafa wax ne wa ahbibil muumina lil imaani wa tubxidil kaafira lil kufraani jullit bi na koy sopp ndax bokk ngeen bokk lislaam waaye yéefar bii na nga koy bañ ngir wedd gi wedd yàlla kon ñoon foofu rek lañ see nekk te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke dafa waxoon ne Sëriñ Tuubaa bam bàyyi ci ca tukkeem bu tedd ba dafa waxoon ne jéggal naa sama noon yëpp en fawtu anil adaa turan li wacci man nafaahum li xayri sarmadan la su adfahum kon jéggal na ay noonam yëpp mu teg ca ne Sëriñ Tuubaa kon du ku ñuy xuloo du ku ñuy xeexal ku ñu topp la ku ñu yaakaar la ku ñu wóolu la foofee rek fa lañ fas yéene tënku te duñ ko wàcc ba faw ndax sëriñ bi dafa jéggal ay noonam di fàttaliwaay fàttaliwaat itam suñu kilifa gu baax ga sëriñ Saliou Mbacké yaari mbir yu ma ci fàttali benn bi am na ay coow yu fi amoon ba coow yu bare mu yëkkati ci kàddoom wax ne ñëpp ànd ak dal di jéggal laa leen ba ñooy defee délégation ñëw ci moom it waxoon ne leen yaari yëf dina ma leen ko bàyyi loo xel mooy ab taalibi buñ too tooñee ab sëriñam buy fayu du tàggoo mooy benn ba ca des mooy leen nag man sama jëm bopp ci sama xol jéggal naa leen waaye nag topp murit yëpp nag kenn ku ci ne ma wax la ne wax ja nga déggoo mu naqari la nar a neexaar loolu moom duma ko def loolu ñu ko Serigne Saliou wax moom naa tudd seen kon danaa yéefi ne ndax ñi ngi dund da ko jiitoon moom mi ngi dund ku jiitoo lu bari ci lislaam bi ci Sénégal ñëpp xam nañ ko kon loolu rek laay fàttali di xam xamle rek na fa ma nekkoon rek falaa ci ne du ma ci soppi ko mukk ba ca desit mooy eh, xikma yu sëriñ Saliou Massa wax mu dégg ko falaa ca falaa fa séeni daa waxoon ne waxi journal jëru tontu mm-hmm. ndax nee na cool ñetti fan rek la mm-hmm. daana buñ la waxalee nga weddi bu ëllëgee bu ñu waxaatee danga nga weddi waat boo weddee lii bàyyi lii nag bu ëllëgee la nga weddi ak la nga weddu yaa saxal la ci des mm-hmm. loolu itam du ma ci soppiku ba àddina tukki yàlla def na itam maa ngi sant yàlla di sant Sëñ Tuubaa dara lu diis ci sama xol wala lu ci mën a jeexital amut ndax damay xam ne la Sëriñ Tuubaa waxoon rek ba mu wootee ci njaareem ne ndax ñëpp ndax ndax ñëpp ñëw ne ko Mbàkke ñëpp ñëw nañ suñ Maali Njaay moo ko ne Mbàkke ñëpp ñëw nañ sëriñ bi ne ko woote ñëpp woote ak dëgg ñëpp si yàlla may ko kenn lu muy rasul la du ko may kenn damay jàpp ne lu yàlla mi bind ñëpp amut rasulullahi mi tax mu bind ñëpp amu ko Sëriñ Tuubaa mi suñ yaakaar àdduna ak alaaxira amu ko jërti jéem a séntu suñ kilifa yu baax itam lu ne dégg nañ ko maa yuqaalu laka illaa ma xad xiila li rusul min xablika loolu suñ borom waxoon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lay wax mooy li ñuy wax yonent yëre jëkk man mi itam kon noonu rek laa ko jàpp luñ ma wax rek lu ko gën a métti foofu wax nañ ko sama kilifa ñu muñ ko ngir yàlla xam ne liggéey bi fa laaj kon loolu moom foofu laa laa dañ ci leer la te fas yéene ko yéene wàcc bu mukk waaye itam di wax ne jàmm daa am lu koy indi li ko mën a indi mooy ku ne warmaal sa morom respecté ndax respect bu amul ci mbir li ñuy wax fawda fawda mooy anarchie moom la mën a jur ndax nit ñi itam danañ muñ waaye buñ muñee ba seen muñukaay fees la ñuy def kenn mënu koo contrôler moo tax loolu tam ñëpp war nañ cee bàyyi xel boo loolu du njariñul kenn ndax jàmm bu amul cim réew kenn du sala jàmm yàlla kenn du sala liggéey kenn du sala def dara te wax daa mën a yàq mën a defar mën a yàq kon nag la ma waxoon lépp lu jëm ci Serigne Touba ma xam ne yoon wee tax loolu moom awuma ci maslaa awuma ci xarit awuma ci wëllëre bu dee sama mbirum bopp la moom awuma ci soxla waaye nag lu jëm ci Serigne ndax looloo tax ñu teg ma fi sëriñ Abdullah Mbacke daa waxoon ne kuñ jox jaasi dañ laa gorloo kuñ jox xepp dañ laa dogloo kuñ jox baat dañ laa waxloo kon fii ma nekk li ma ci amal solo mooy di seereel yàlla ak Sëriñ Tuubaa bi tax ak ki fi nekk Sëriñ Tuubaa te dénk ma liggéey bi loolu nag rëgaluma ku ma ci xas bëgguma ku ma ci tagg ndax aw tagg ak ko xas amul njëriñ ndax bu dee ñëpp ma asoon ci tagg la te yow mu wóoree la ngay wax li ñuy wax ci dëgg waaye nit ña koy dégg te amee xel xam ne dëgg loolu solo bu ñëpp maasoon ci di la sikkal itam te lañ lay sikkal ñi xam xam ne amul amul solo te man yàlla damaa defal feex damaa noppalu ci loolu ndax wax yi ñuy wax sax déglu ko li ma ko nettali bëgguma ko dégg te lu mel ni mooy bëgguma ko déglu ndax boo ko dégloo rek mën naa jeexital ci yow te amul njëriñ eh, bu amee lu cay metti ci man weesuut yaar yëf du sama jëmm de. waaye ak yebeel ci biir yoon di ci bëgg a tàbbi ndax kenn nit ku taxaw fee rek te xam ne sëriñ Touba li aju ci ay millions nit ñoo ko yaakaar ngay bëgg a damp seefu taalibe yi wala nga mel ne koo xam ne yaakaar gi ni ñu yaakaar Serigne Touba lu ñu ko topp dalaa laa neexut mm-hmm. loolu ko yaakaar Serigne Touba faaw mu naqare du sama jëmm waaye koy def dañ koy defee ci ñeneen kilifa yi ci yoon wi di ko defee ci biir dëkk foo ci dégg loolaa ma gën naqari ci li jëm ci man man bu dee woon mën nañ xam ne mbirum Serigne Touba du lu ñu foyee du lu ñu caaxaane ndax koo xam ne wóor la ne waxuma la muy jéem a indi fitna waaye bu ci bu ca wane woon aw naqari képp sa bakkan mën na ko bañ a fekke te loolu da yàqum réew ndax am réew siwil du fajal boppam siwil du du saafaraat boppam waaye nag looy itam loo ko mën a indi mooy lépp day tegu ci yoon waaye bu fekkee bu nit waxee wax ju rafetul ñu ñu ñu ñu nëpp nëppal ko loolu tam bu yàggee kenn du xam fu muy jur moo tax ki nekku ci dëgg dañ koy wax ne ko yaa néew ci dëgg moo tax unzur axaaka zaliman aw masluman sa mbokk boo koy dimbale bu tooñee danga koy wax ne ko yaa ma waaye ak tooñ gu gu amut app amut fenn fu mu tàmbale amut fu mu yem bu yàggee tam mën naa dem ba jur loo xam kenn bëgg ko kon loolu laa ci fàttali te ñoom lañ doon wax waxal seen bopp euh, waxuñ ko waxee waxee nu teggin ndax bu fekkonte ne. ndax xuriyatu taabir mooy li nga xam ne àddunaa ko andi léegi donte dëppoowut ak lislaam mooy ku ne wax sa xalaat bañaluñ leen ko ndax loolu àddunaa ko andi te dañoo ne ci biir àdduna waaye bu ñu booy bu ñuy wax xuriyatu taabir mooy sañ a wax sa xalaat yi da ngay wax li dëgg waaye bu toog fa nga toog rek seet la jub ci sam xel wala ñu neexal la ci xaalis wala nga bëgg santaas nit tax ngay taxaw ci rajo di wax lu neex loolu moom kenn mënu ci ànd kenn te man yàlla damaa dimbale ku taxaw fee yaakaar ne danga may santaas ba addunay tukki duma ma la ci wuyu. man ci ngor ak lu baax laa man andi waaye santaas du ci andi ndax loolu kenn mënu ko. Euh, Serigne Saliou Mbacke daa wax ne daa daa wax ne nit ñi seenoo tagg kenn mënu ko ndax nee na doomu aadama kenn mënu koo jënd ndax nee na saa soo ko jëndee bu njëggee jeexee mu moomaat boppam kon nit ñi kuy ànd ñoom ci jikko ngay ànd ñoom man nag loolu mooy sama doxin mooy sama gëm-gëm. kon nag loolu laa amoon ci lu ma ci leeral kon li ci am solo mooy nañ xam ne lii du sama mbir man sama jëm bopp jéggal naa leen jeexal naa ko it waaye du lii ndax lii amul solo waaye la am solo mooy ñoom ñi dëkk ci dëkk bi nañ xool ni ñi nekk ci dëkk bi te xam ne ñoom itam cër bu leen keneen jox ndax ñi ci ëpp ko am na ci ñoom du ñu journaliste te nit ñi xam nañ ko ña ci doon journaliste am na ci seenu seenum njàng soriwut kon cër bu ñu am dëkk yi dëkk Tuubaa leen ko fay waaye nag waruñoo jël dëkk yi ndëkk Touba nag jël ko di ko tooge ci kaw nit ñi wala ñu koy yàq dëkk bi loolu moom waa Touba yi dañ cee war a am fulla nag ndax euh, buñ leen joxob cër ngir Sëñ Touba ndax ñun muy journaliste ku du journaliste ñëpp lañ jox àq ndax suñu borom moo wax ne wala xad karam naa bani aadama damaa teral doomu aadama a ay fii kulli xalqin xaqa man xalqa del sàmmonteeg àqi mbindeef yëpp ci képp ku yàlla bind kon ñun duñ toroxal kenn duñ jànn kenn kenn mës a dégg ma toroxa ni sama biir kër sa sama may toroxa ci biti loolu du sama defin waaye nag bu ma amee lu ma war a leer la mu aji ci yëpp loola seetuma ci lu neex nit wala kon loola la ma ca waxoon démb amu ci lu may soppiwaat ko waxoon itam na ma ko waxoon jotewuñ dara yéenewu ko dara loolu lu baax waaye nag bu defee lu jaaduwut loo xam ne ñëpp xam nañ di jaaduwut tam daa jaar ci ma leer ko te loolu itam ngeen xam ne yamay ca teg sama tànk mu ëpp ndax ma lu may lijjanti ci biir duma ma ko wax ci rajo lu ma ko wax ci biti soxlu ma kenn di ko xam ndax looloo ma fi bàyyi te yàlla laa koy seeral ak Sëriñ Tuubaa te doo ne doo ne sëkk seere ci loola ak boroom liggéey bi di eh, ki fi nekk Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ñaan mu yàgg fii te ànd ak wér kon nag eh, yéen itam ngeen xamee ko noonu xam ne ku am taw tawféex dëkk ci biir dëkk bi ñëpp di la warmaan ngir Sëriñ Tuubaa itam. war ngaa sàmmante loolu te xam ne boo ko defut kat mën ngaa dem ba la nga amoon nga ñàkk ko te eh, maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ne yoon wi sëriñ bi ñag na ko ba dara mënta jóge ci biti di ko yàq waaye la koy róor ci biir la juddoo kon waxtu ne may fàttali it la sëriñ bi waxoon sëñ Massamba ne ko seytaan di dikk na ci man xamal ma ne fu ne jaar naa fa waaye amu fenn fu ma la mën a jaar waaye dama ne naa jaxase leen na ci sama mbooloo ak lenn na ci sama mbooloo ba jaxase leen ba kenn leen mën a tàggale kon nag ku jug di jëf ci yoonu Sëñ Tuubaa war ngaa bàyyi xel ba xam mel nga ni Sëñ Tuubaa bëgg mel ni bu fekkente ne natt nga sa bopp te xam ne nii nga mel kat eh, melu saytaan la wala ko yàq ci biir yoon war ngaa xoolal sa bopp te xam ne tàbb nga ci biir wax ja te Sëñ Tuubaa ko koy yaakaar nag adduna ak alaaxira tax kon nag loolu moom maa ngi koy fàttali ñëpp ñu gën a góor góorlu gën a soppi doxin yi te bàyyi xel ci la leen Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon mm, ci ñu wax ko fi léegi mooy tuuma topp na leen tuuma topp na leen ji nag mooy waa dëkk bépp ko jàmbat man tey laaj ma su wax te bëgguma ci woon wax sax li ngeen fi ñëw tax di jéggalu loolu moom suñu maa ñàkk jéggale sax ndax euh, ku bokk Sëriñ Tuubaa ku ne waroo jéem a toppante nit waroo koo jéggee ci sa làmm sax tam ne ci biir xol danga koy jéggee ci sa làmm jébal ko ci biir xol waaye teewul loolu lépp itam ay nit bu ñuy ànd bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg man ku may àndal ku ci dëgg laay mën ànd yow li may mën a ànd ak ci mooy jukki ju baax ak makaaru axlaq boo ko xamee baax na ndax man yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa waaye ku ma xas ku ma tagg laay male li ma amal solo daal mooy te di ko ñaan mooy ndimbal yàlla ak ngërëmu Sëriñ Tuubaa